Serigne Mboup di président groupe bu CCBM ni nga xam ne noonu la koy defee at mu jot defaat na ko ci wàccaayu màggal Touba gi mu yëkkati lim bu takk lool ci ay bernde jébbal ko comité d'organisation bu màggal Touba gi mu ñaari camion yi nga xamante ni dañoo def ay bernde ba fees muy ay boisson ak ndox ci xeet yu wuute ñëw jébbal ko comité d'organisation bu màggal gi ngir jàppale leen ko ci ni nga xam ne noonu la ñuy taxawoo gan ñi. bis bi ñu jëm nag di bis bu rëy muy bisu màggalu Touba mbooloo mu baree bari di fi daje. di laaj ay taxawu te taxawu ya ñuy laaj sax di taxawu yëgën tax euh, lii bokk ci ay taxawaayam muy saa bu ñu tolloo ci waxtu wi mu jël lim yu baree bari yoo xam ne ni ngeen xamee taalibe buy jox ab sëriñam du baaxoo di ko tudd te it ko doon jéem a tudd doo ko man waaye lu nekk rek ñu jël ca quantité tey jii dañoo jëm ci wàllu naan yi euh, di lii ñu jàkkaarloo ci suñ gannaaw ñi di ko jébbal ndaw yi nga xam ne ñoo fi teewal waa comité d'organisation bi muy Serigne Mourtada Lo ak Serigne euh, Mor Lo euh, ñu jébbal leen ko ci tur Serigne Buub mu wax ne euh, tuuti la ci li mu yéene feeñal rek ab barkeeloom ngir jàppale ko sëriñ bi ci dalal gani màggal gi fii ci résidence bi bokkut ak yeneen yi nga xam ne ma ngi koy def ci yeneen barab tañ di dalal ay gan hmm. kon ñu di ñaanal. suñu boroom yokk kattanam ak wéram ndax euh, ñi gaan ak moom ci lu bari xam nañu ne saabu yokkoo lislaam dana yokku moo tax li may faral a wax koo xam ne nag bu yokkoo lislaam yokku koo xam ne ak yokkute koo xam ne yokkuteeg lislaam ñor na la danga ko sant danga ko ñaanal bokk na it ci li ci gën a sedd xol mooy lu mel nii rek la ñuy taxaw di ko wax ci moom. du koo xam ne bu tayee ñu seen ko ci lii bu ëllëgee ñu seen ko ci lee ci lislaam rek lañ ko seen mu farak moom di jël yëfam di ca def moo tax kon tey jii mu defaat noonu ci xew-xew bii di ko di ñaan ñu yàgg ko teewe li nga xam ne Serigne Mboup moom la indi teg nañ ko ci loxo commission bi nga xam ne ñoo yor wàllum intendance ci comité d'organisation bu màggal Touba gi ñu rafetluwaat bu baax a baax taxawaayub Serigne Mboup ak jëf ji nga xam ne at mu jot da koy def te at mu jot lim bi da koy gën a yokku. suñu mbokk taalibe mooy Serigne Mboup di président groupe CGBM nekk taalibe bu ràññeeku ci taalibe sëñ Touba lii mu indi tey mu yàgg ko indi ci màggal gi pour ñu teral ci ganu sëñ Touba yi ndax defe naa lii Euh, euh, mën naa ne euh, li ñuy réceptionné au niveau de la commission intendance lii lañ njëkk a réceptionné gun ren ji donc looloo tim muy ab tegtal di ay ca sëñ Moutala ma ngi ma koy wax nema bu màggal gi bu màggal gi jeexee rek daanaka saa su ne day woote di laaj la ma defoon daaw lan la ca lam defoon daaw aussi da koy da koy yokk considérablement at bu jot. boo jëlee bernde yi nga xam ne moom la ñuy jox gan yi nga xam ne ñoo nekk ci kër Serigne Touba gi li ci ëpp ci wàllum naan yi Serigne Boub moom moo ko fi indi at mu jot. te mën naa ne xéewal yi ñu andi tey mu jëm ci ndox ak boisson bu li ñuy soxla ci màggal gi bu nee 100 la mën naa ne 80 80 pour cent yi moom da koy indi kon nag loolu. Euh, ñu ngi koy euh, euh, jottali ay ay cant yoo xam ne dafa jóge ci sëriñ bi ba mu àgg ci moom ak ñaan ñi mu yabal tim mat ay ndaw ngeen xam ne daal li ngeen li sëñ boobu andi daal mën nañ ko wax ne egsi na waaw tege na ci ay loxo ñun ñii nga xam ne ñoo ko yor yoral ko sëñ bi te danañ ko àggale sëriñ bi wax ko benn par benn li ngeen fi indi lépp te wax dëgg yàlla lii moom. Euh, c'est un pas géant ci ni ñuy ci organisation ak euh, organisation màggal bi. encore une fois ñu ngi koy sant. di ko gërëm euh, di ko encourager ci yoon wi nga xam ne moom la moom moom ci la nekk. bàyyi xel bu baax lépp lu ñuy def ci ci ci ci dëkk bi rawatina nag màggal Touba gii nga xam ne amuñu lu dul màggalu Touba.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 صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة